Assane mm-hmm. député yeew yi dañoo def ab ci conseil constitutionnel wane ni d'accord ñu ci li xew assemblée national ndax li ñu xamoon ci ab loi loi du viser ñaari nit mu ngi mel ni man ak yow ak Assane ak Modou ñoom ak topp ñu bokk mel ni mbir loo xam ne ñun la waroon a boole ñu yóbbu ko assemblée ñu yeewi ñu ñu jël loola boole ñu ko mag yow mu yeewi ñu ñu ne daal nañ dugal ab recours pour wane ni daal luwa bi tegewul ci yoon ndax loi warut a ñaari nit. waaw mooy ñaari kii ñii. mooy xalifa ak Abdou Karim Wade. Ah, pour lijjanti leen. waaw ah déedéet non moom maam dañu bëgg ñu bañ leen bàyyi wala. non dañ ñu loi loolu daawul nekkee noonu maanaam daawuñu gracier ay nit wala ñu bàyyi ay nit. Hmm. jéggal leen ci noonu ñaari nit. loolu dañ koy doog a seetlu si réew mi. Assane man daal dama laa laaj. ah déet loolu ñoom ñoom buñ loolu affaire ci wane la buñ demee ba naan dañuy dugal recours ñoom réew mi li fi am lépp daanaka lu fa dugg war nañoo dugal recours lu. lu fa dugg war nañoo dëggal recours. lu dugg fan. ñoom assemblée boobu ñoom ñooñu nañuy doxee. Ah. lépp lu leen indi rek dañoo war a duggal recours kon waruñoo tànn point bi rek di ci duggal recours. waaw ah. voilà joxe hélas. lu fa dugg war nañoo duggal recours mooy lan. mboolem lu fa dugg laa ni la. waaw lu fa dugg mooy lan. la fa dugg lañ fay dugal lépp rek ak li ñu gis ci réew mi ni muy demee ak yañ fa war a dugal li ñu war a def recours dafa bari te defuñu fa kon buñ tànn ñaar yi naan ay danga ci ànd d'accord ci ak ñoom daal d'accord ma si recours bala nga ne ma joxal hélas da ngay déglu ba pare li ma lay laaj dama ne la d'accord ci ñu dugal recours non non fi mu ne nii ma ne la waxee joxe hélas kay da ngay war a joxe hélas fi mu ne nii da ngay dugal non dinaa dox jox hélas waaye dama ne la ndax da nga ne d'accord ci daal d'accord ma si ñu dugal recours voilà mais boo nag li mu ne ci réew mi yëpp dañoo war a dugal recours Assane am na lu war a jaar ensemble am na loo xam ne décret la hmm. pour président Sall am na loo xam te day décrété dara léegi moom de signature am lay xaar hmm. loola day am na loo xam ne day jaar ensemble lañu indi biir ensemble laa am na lu fa ñëw ba jàll ñu war a dugal recours te dugaluñ recours waaw kon yow d'accord ci ñoom. d'accord ma si kay. voilà mi ngi noonu alaaji euh, yow ndax da ngay d'accord ci ñoom ñu dugg recours wala ñu dañoo war a bàyyi mu sedd. waaye yeewi de man su ma doon ñoom. Hmm. Euh, duma ma dugal recours du ma leen dimbali ci liggéey bi hmm. euh, parce que mën nañ cee jaaree. Hmm. mu mel ni waa yeewi ñoo galgal gaa <laughs> te ñoom ñii ñoo nar a galgali gaa su ma doon waa yeewi nag damay neutre comme que ñoom. Hmm. ubbi nañ seen ab bunt. te leer na ma ni bunt bii bunt bu ñuy tëjaat feneen la. Hmm. dama leen di bàyyi ñu tëj ko feneen balaa ñuy jaar ci mbirum waa yeewi bi daal di ne demuñu ba noppi maanaam gën leen a jaxase. Hmm. maanaam loolu mooy li am parce que ñoom xalifa mën nañu jàpp ni fi mu toll nii ak Karim jàpp ni waa yeewi ñoo leen bloqué ñoom mën nañoo jaar ci porte boobu pour bloqué waat leen. te seen ëllëg ci bloqué leen jàpp naa ni fa lañ jëm ñoom moo tax bu ma doon ñoom du ma dugal benn recours du ma ci wax dara dama leen di bàyyi ñoom ñi leen ubbiwaat bu ñu leen galgalaatee feneen ñu xam ne ki leen ubbi woon moo leen galgalaat ah. mais man duma ma participer di leen dimbali ci liggéey bi d'accord waaw am na loo xam ne bii day mel ni ndimbal la ci liggéey bi nga xamante ni bi moo war a ñëw ci kanam d'accord waaw aywa kon mu ngi noonu muy loi boo xam daal gars nee nañu wërta viser benn nit daal di jëm ca moom